dalleen ak jàmm ku doon wax coowal institution Sainte Jeanne d'Arc jeex na juum nga l'observateur ne ci xëtam wu njëkk retrouvaille impossible bëri na xale yu jigéen yi muur yi ñu dàqoon ci école bi dañ koo suur këll bëggatuñ fa sax teg seeni tànk yenn ci ay waajur di wax kenn ca ñoom dénk l'observateur ne moom ay doomam yu jigéen toog nañu ñeenti fan lekkuñu naanuñu dañu leen tuutal ak coow li ba mu jógee ba léegi beneen waajuru ndongo ne moom doomam bi am fukki at képp dafa traumatisé daanaka te jamono jii dafa bañ école bi bugg koo sax tegi gët ca page 5 bu journal groupe Futur Média bi ñu jox kàddu ab benn psychologue di Khalifa Babacar Diagne moom li mu gis mooy xale yu jigéen yi faaw ñu jox leen ab suivi psychologique maanaam ñu leen di topp laata alxamis gii di ñëw bés bi ñu war a delluwaat ci école boobule bu dul loolu bu ñu delluwaatee ca école ba dañuy mel ni ñu feebar ñu ñuy joxoñ te loolu dara baaxul ci mantaalu xale yi journal Source A moom di ci dolli nii yëf yi jeexagul de tey dong la coow li door a tàmbali lépp mi ngi aaju ci fulaar bi école bi nar a joxe tout dépend du foulard confectionné par l'école moo nekk ci xët wu njëkk journal Source A daje nañu démb ñoom nee nañu di ngi xaar di xool muraay bi ñuy jox ñaar fukki xale yu jigéen ñi ak ñaar naka lay mel waaye soow mi li ciy ñuul nag mooy comité boobu ci boppam bokkul ci réunion bi ministre de l'éducation nationale woote barki démb te ñoom nee nañu luy ji njàkk ñoom ñooy njàkk seeni doom la lu ci mënti am nee nañu fulaar boobule bu méngawul ak diine l'islam li mu wax dinañ leen dégg beneen yéenekaay buy dëggal ni coow li xaajul bay fay mooy journal enquête tere muraay gi ca institution Sainte Jeanne li muy wane képp mooy ab ci sunu système démocratique ak républicain loolu la journal bi gis justice ci xëtam mu njëkk mu bind à l'épreuve de la loi benn expert xam-xamam màcc ci wàllum yoon moom la ñu jox kàddu muy leeral laïcité en droit sénégalais kii di Ndiogu saar jàpp nag ni état bi warta faral benn pa diine ci doxalinam ku ca nekk war ngaa mën a jëfe sa diine te doo gàllankoor keneen enquête di joxe misaal lu ci mel ni école Mariama Niass yow Selim Jeanne d'Arc journal bi lam ca gis képp mooy am na liggéey bu rëy bu ñu war a def ci wàllum yoon rawatina ci école yooyee ni ñuy doxalee maanaam école yi tànn di jàngal seeni ndongo basé diine mi ngi ci page 5 bu journal enquête mooy moom nee na wax ji waxoo leen ko de yëf yi Vatican la jógee Vatican ci boppam moom moo wañ loxo institution Sainte Jeanne ngir coow li daal di ñu dem ci Macky ca conseil des ministres na démb dafa meroon bay futtu Vox Populi moo ko wax président de la république di naqarlu yëfu Sainte Jeanne boobu leen niñ ko lijjantee waaye muy jaajëfal Mamadou Talla ministre de l'éducation nationale ak saafara xamal ni njiitu réew mi ci conseil des ministres dafa joxe dogal ngir ñu gën a yaatal liggéey bi ñuy def ngir ngàcc ndox yu bon yi nekk ci réew mi waaye tamit canaux yi ndox yu bon yi di jaar ñu fexe ba defar ko ni mu gën a baaxee askan wi loru jamono ji ñu fexe ñu leen taxawoo quotidien national le soleil ne ma dollil leen dañoo fas yéenee dem càmbar lépp lu ONAS def ci wàllum liggéey vers un audit technique des ouvrages d'assainissement xool lépp li ñu def ndax baax na lan moo waral ndox mi du jàll Macky Sall se met au mi ngi sol benn costume takk karawaat loolee moo nekk ci journal L'As sunuy naataango dellu si ci conseil des ministre yàqu-yàqu yu taw bi amal ak dogal yi président Macky Sall ne nañ ko jël lijjanti ko ci ni mu gën a gaawee ginnaaw ndoxu taw wi leneen lu la jël huit askan wi jamono jile moom la tribune wax ci aljuma ji collecteur bu Hann Fann HLM tuyau bi yóbbu ndox yu bon yi câble haute tension pipeline bu Sarr branchement électrique yéen kaay groupe des médias bi loolee la tuddee ces bombes que l'état entretient muy bomb yi état bi toog di seetaan te lii wala jëm tuyau Hann Fann bi moom dafa màgget juróom-ñaar fukki at am booy xool ci guddaay mi ngi ci ñeenti kilomètre ëpp ñaari téeméer ci ay kër ñoom ñoo ci tegu ñoom ñoo ñee ñëpp seenuy bakkan mi ngi ci xottu gerte yéenekaay bi ne ma dollil leen ca diwaanu caaro yi moom boo fa demee lu ëpp juróom fukk ak juróom-ñaari junni ci ay doomi aadama li ko waral fukki usine yu nekk foofu xeetu feebar wala xeetu gàllankoor bu nekk mu ngi koy indil askan wi foofu foofule ñu bàyyi ndox mi jëm ca koom ga li ñëpp wax du dëgg libération moo ko wax daanaka les bon comptes de Macky Sall yéenekaay bi ne weeru bi ñu génn recettes yi mi ngi toll ci 1616 milliards ak lu topp waaye mu mel ni les échos feneen la yër moom ay jafe la ji gis budget bu doyul xaalis boo xam ne balaa nga koo génne di nga sonn ay salaire yuy tardé ITIE di mbootaay bi ñu fi teg ngir leeraange ci industrie extractive yi téeméer ak ñaar fukki million képp mooy budget fonctionnement at wu jot ñu bàyyi koom wutali politique le quotidien moom la xëyee tey ak élection premier adjoint au maire vice président conseil départementaux yi désaccord du dialogue ñi yëngatu ci wàllum politique jubóowuñu de jubóowuñ ci dara non aligné yi dañoo bëgg élection boobule am suffrage universel direct majorité bi ak kuje gi moom yëf yi bëgguñu dara soppeeku ci commission technique bi fas yéenee jox xalaatam mardi bi ñu dëgmal moo Karim Wade daa am ñaari tura direct info di ñu xamal ni doomu Abdoulaye Wade bi da doon jéem a tontu Omar Sarr ndekete yoo lettre ba daal turu Mayoro Faye la ca siife waaye léegi nag kan moo sañ a taxaw ne moom Karim du ab yambar Abdoulaye Banguer bokk ci comité directeur bu parti démocratique sénégalais moom moo ko wax ci biir direct info yamu ca nee Mayoro yow war ngaa fàttaliku sax guddi googee kër Omar Sarr nga toogoon yekk Karim lu mel ni xeme nga ne workat la bu xat la moom Abdoulaye Banguer yekk lu mel ni xeme Karim Wade ak Mayoro Faye teg ci nag di tagg moom Omar Sarr mi fàqee ci parti démocratique sénégalais beneen coow professeur Iba Der génn gu ci de ak bindum taarixu Sénégal ci biir Vox Populi ak Le Quotidien historien bu mag boobu lee di ci indi ay leeral rawatina ci njumte yi ñu ne dafa am ci njabootu El Hadj Amadou Sakhir Ndiéguène moom professeur Iba Der Thiam ne dina ci indi ay jooyanti laataa muy egg ca loolu jaraaf yu sundooy jaraaf bu wakkaam mu ngay danxaafu de nee na moom professeur Iba Der Thiam bés bu juumee ci seen taarix ñoom askanu lébu dinañ dem porte ji plainte jërë ngeen jëf ñu yendoo jàmm